monsieur monsieur le ministre. waaw. do doomu baal nga tegalaat ma ko. mais mais sëñ Cheikh sëñ Cheikh tey paquet na affaire nii ngeen garaawee mais ça na man maa ñëw sukk di ko sukk yëpp pour demander un truc. toi tu étais présent et toi qui m'a qui qui a qui m'a qui a beaucoup insisté de mettre ton patron au pouvoir et c'était avant que je m'engage en politique c'était en 2013 mais waaw di xamoon ne nag gars yi mën nañu wàcc à ce niveau là mais comme tu es témoin waaye <laughs> tu vas faire le ok eh, mën nañu xam audio bi ban ban la woon. Euh, Moustapha. Mhm. audio bii nga dégg mu leer. Mhm. xam nga waxatul ne rencontre am. waaw waaw waaw waxul nee na am na te 2013 la. Mhm. te Cheikh Issa Sall mooy témoin bi. simplement. Eh, li ci Mansour wax des na ko que science woon ne affaire ni la ñu garaawee te ñeme nañ yegg fii te beneen ba ma ngay wax ni non non mom du mom moo sababu rencontre bi Mansour ko sabablu xam nga loolu wute na ak li mu doon wax ni Mansour dafa kàcci rencontre musul am ma ngay wax ni du moom moo sabablu rencontre de Mansour mais su Mansour sabablu rencontre Ousmane Dine 2013 la koy doyee eh. Ousmane bi 2014 du 2015 du 2016 du ba mu nekkee député 2017 du bu mu génnee présidentiel donc xam naa leer na léegi ma dellu laaj bi nga laaj. Mhm. enregistrement bi euh,